Thank you. toujours ci seen acte du jour tey talata juróom-ñaari fan atum ñaari jooni ak ñaar fuk ak ñett suñu joggé fofu ci dossier médical Ousmane Sonko dañuy dem fële ci Podor suñu démé sa Podor nak dañ fay fekk ki nga xamanteni moy Lamine Ba moom mouvement boobu ñu dippee Podor va mal mom nak dañ ko convoqué fofu ci direction des investigations criminelles Lamine Ba mi ngi ni di coordinateur mouvement bi ñu dippee Podor va mal mom lañu traîner en justice kan mon traîner en justice muy coordinateur bi nga xamanteni mo jité Moussa Puma di Moussa Sow di maire Walalde ginnaw lool nak dañ ci indi ben rectificatif rek suñu émission émission acte du jour bi passé ginnaw bi ñuy wax ci Moussa Sow maanaam di maire Walalde ci suñu biir illustration dañuy utiliser won ki nga xamante moy Moussa Sow bi nga xamante mo yor Cogère nek fofu ci dara Jolof mais jàppale ni ko du ben tour ñu ñoo bokk rek mais juumte la won ci ñun rek ñi jël tour euh, photo Moussa Sow bu Cogère maa di koy illustrer ki nga xamante moy mooy Moussa Sow maire Walalde bi nga xamante actuellement mom mo uti uti lépp lu jëm ci IRC APR fofu ci département de Podor mom lañ doon waxal muy maire Walalde bu bokkul ak Moussa Sow bu Cogère muy rectificatif bo xamante ni nañ leen ko indil tey donte ñu bëri interplay woon nañ ci ku mel ni Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ak ñeneen waay yoo xamante dañuy suivre nekk foofu ca Fouta ñu ngi leen di xamal ni que xam nañu bu baax a baax Moussa Sow maire Walalde bi jiite Puma ak Moussa Sow bu Kogère kii Fouta la nekk maanaam département de Podor kële ca Daara Jolof la nekk donc ñu ngi ciy bu baax ñi nga xamante mooy image boo nga xamante ni juum nañu ci ñaari Moussa Sow ni moo traîné kii nga xamante ni mooy Lamine Ba di di Moussa Sow Ba bi nga xamanteni moy coordinateur mouvement bobu ñi dippee Podor va mal lañu la convoqué tey ci talata ji juróom-ñaari fan ci weeru novembre atum ñaari junne nga fakk ñet ñett foofu ci divulgation des investigations criminelles ginnaw bi nga xamanteni ay propos yu mu yëkëti won jëm ci ben interview bu mu accordé won ki nga xamanteni moy wa waa 7TV muy interview bo nga xamanteni après dinaa leen ko tégal le 3 novembre bi ñu genn ci endroit ki nga xamanteni moy Moussa Sow di coordinateur parti bi nga xamanteni moy Union pour la modernisation de l'alternance ñu dippee ko Pouma mom la accusé mu organiser ay tournoi de football yo xamante da fay profité li jëm ci occasion yi pour def ben parrain ki nga xamante moy candidat Amadou Ba ay propos yo xamante dañ ko juger diffamatoire kiko juger jugé nag du kenn ku dul Moussa Sow lan la def mom dafa dem saisir li nga xamante moy division des investigations criminelles nañu sétane vidéo bi dellu si une confiance Mamadou xam nga lu xew Podor particulièrement tay xam na comment li ñuy def pour contourner les gens détourner leur conscience ils organisent des des des tournois ont organiser des tournois dont eux ils sont ils sont parrains je donne mm. l'exemple du tournoi qui a eu lieu à Goléré où le ministre pardon où le directeur le coordinateur du PUMA Moussa Sow était parrain Hamouni mm-hmm ils demandent aux gosses de ne pas venir avec les licences, qu'ils viennent avec leurs pièces d'identité pour, la finale ou pour le tournoi. Pendant ça, ils récupèrent... de parrainage, là. Ils récupèrent toutes les cartes d'identité qu'ils hmm. photocopient, photocopient, nous remettent remettre les gosses pour... Comment on dit C'est même risque pour eux parce que Khalabi euh, m'a parrainé inconsciemment, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pour la plupart, c'est des escroqueries politiques. Pour la plupart, c'est des signatures imitées. Si on def point, euh, point, fiche par fiche, les gens se rendront compte que c'est des jeunes qui ont été... Et les responsables de la perte de Benoît Bokk justement jox naa l'exemple de la finale qui a eu lieu à, à Goléré mhm. où le Moussa Moussa Sow coordinateur était était parrain les lors du match qui a opposé Djoudi Diabé à euh, Méry c'était ça Moi, je donne dama mais là aussi il y que des euh, dëkk bi dafa dafa euh, par la tête parce que aussi ñi ñuy diriger on a le bon exemple Si ñu nekk ci pratique ça veut dire qu'on est mal barré mais ils sont mal barrés parce qu'ils ils se détournent de l'essentiel pour aller vers des futilités Mamadou je ne parle même pas de futilité, mais je veux dire, escroquerie, bobo, non, mais l'autre aussi, c'est à Mais, c'est grave. quand j'ai eu vent de cette affaire-là, j'ai dit aux gosses, désormais, ne donnez plus vos pièces d'identité, pour les donnez carte d'identité. Parce que quand on organise le tournoi, on a tu es le pareil. Tu demandes aux gosses, nous avons un football, nous avons une carte d'identité, pour une licence. Mhm. Tu rassembles toutes ces cartes d'identité, nous avons nous avons pièce. Maintenant, tu fais des pièces de parrainage, nous avons dit voilà, le coordinateur, voilà, Amourouba, j'ai rassemblé 10 000, 7 000, 3 000, 4 000. Alors que c'est fou kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi nga xamante ni Lamine Ba di coordinateur bi nga xamante ni mooy Podor va mal ginnaaw biñ ko invité propos yi mu yëkkati woon jaglal ko ki nga xamante ne mooy Moussa Sow di coordinateur u PUMA di maire Walalde ginnaaw loolu nag kii la Moussa saw gis ni ko daf ko diffamé ci biir diffamation boobu nag la ko porté plainte moo tax tey dinañu convoqué ki nga xamante ni mooy Lamine Ba di coordinateur Podor va mal foofu ca division des investigations criminelles en tout cas Lamine Ba muy ki ma xam bu baax a baax maag moom ñu bokkandoo woon Podor ñu jëwendoo kadee mu nekkoon lam tooro ma nekk déggoo en tout cas ñu gis gisoon ko ci ambition ñu bokkoon benn école foofu muy CM e El Hadj Baba Ndiong bu Podor kon yaakaar naa ni Lamine Ba bi ma xamoon daal yaakaar naa ni ci dëgg laa ko xamoon ci dëggu xëy na nag ñàkkul njuumte moo am rek ndaxte Lamine baa Podor la dëkk yow Moussa saw Podor ga dëkk donc ku ma xam la bu baax a baax en tout cas muy benn convocation daal boo xamante ni kii di Moussa Sow di maire Walalde di coordinateur Puma porté na Kinga plainte kii nga xamante ni mooy Lamine Ba li ma ci mën a jàpp daal te ko bandum ñun ñëpp waa Podor lañu je crois que l'install se lave en famille na bañ a egg dik mënoon nañ ko régler foofu ci seen biir ndaxte man Lamine Ba ba ma koy xam yaakaar naa ni politique xewagul sax APR xewagul ndaxte ki nga football ndool nawetaan mu nekk Lamtoro nga nekk Déggo ngeen bekkoon benn école muy CM El Baba Ndiongo kon yaakaar naa ni kooku je le connais très bien en tout cas muy li ñu leen indiloon tey ci seen acte du jour ñaari fan ci novembre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett sur VIP People TV la chaîne des grands événements comme ni ma vous waxee abonné cloche de notification quant à moi dama vous di rendez-vous Inch'Allah, qui est ci numéro actif du jour mais d'ici là toog leen ngeen à lii di suñu émission qui VIP People TV